yónnee fi ay nag yónnee fi ndugg mu ko mate day mel ni jël ngeen nag yi léegi ñu koy wàcce ci camion bi ndugg maa ngi ci sunu ginnaaw euh, lépp di jublu bi mooy ànd ak taalibe ni ko Serigne Touba diglee euh, ne woon yoonu murit euh, bis bii bu del seetee na ngeen ma ci sant la yàlla xew bu ma ci ginaar yéemu ma ci gilem Serigne Béthio ñëw njaareem ngir ànd ak ñun màggal gi day mel ni waañ yi toll na ci juróom benn fii ci bërëb bii ñu ne di kër sëriñ saaliw def na fi ñaari waañ jëwriñ universel Assane Dia ak waa Ndar ñoo fi féete ca kër mun Mountakha def na fa waañ jëwriñ Talla ngoom moo fa war a féete euh, foofee ca sorti ba itamit euh, di gàppo def na fa waañ euh, mu mel ne jëwriñ Laasana moo fa nekk ma ma may feggoog ñoom ca ca waañ ba ca kër maam Cheikh Ibrahima Fall def na fa waañ jëwriñ universel Serigne Daouda Touré ak jëwriñ universel Massamba Gueye ma nga xamante ni def na fa waañ mu mel ni ne jëwriñ Modou Thiam jëwriñ euh, Serigne Saliou Fall ak euh, jëwriñ Pape Maguette Mbengue ak jëwriñ Ahmed euh, feggoo foofu ngir yaatal màggal gi day mel waaw Touba Ndiarème mi tamit waañ wi nga xamante ni moom moo fa nekk moom la ñu indi ci bërëb bii mu mu li waañ wi fi nekkoon muy ñaari waañ waaye dafa am ay point de division yoo xamante ni bu ñu tollee ci war wala séddale foofee la ñuy yóbbu bernde ci njaarim mu mel ni yaatu ni ngeen ko gisee bu soobee Serigne tubaa teg na ko ci suñuy loxo danañ ko togg togg gu sontu jox ko taalibe yi murid yi te ñoo ngi ciy woo ñëpp ndax Serigne bi kat lim ñu joxoon ci ndigal mooy na ngeen ko ànd ak waa kon fépp fu ci waañ nekk noo ngi sàkku kuy dégg suñu kàddu gi moo xam ne waañ wi waañam la ah jublu sëriñ tubaa Touba la màggal bisu màgg màggalu Serigne Touba gi kon ñoo ngi ciy woo ñëpp